François Calix Sagna ñu ngi lay nuyu. Euh, maa ngi lay fay euh, soxna si di di nuyu aussi ñëpp ñi nga xamante ne ñu ngi déglu di teewlu aussi Rewmi FM. may fàttali suñu auditeurs yi ne moom mooy secrétaire général adjoint bu parti Rewmi euh, di coordonné tamit département bu Koungheul tey ji Rewmi ñuy wax alliance am ak parti wala pouvoir bi gis nañ ne Idy tey mu ngi liggéey ak Macky tey lan mooy ëllëgu parti Rewmi. ëllëgu parti réew mi mooy fa réew mi tegoon tànkam depuis sa création fala des fala teg tànkam mm. maanaam heure bu Sénégal soxla réew mi dafay taxaw heure bu nga xamante ne tey toll nañ foo xamante ne liggéey rek a jot ndax Sénégal réew mi lépp luy soxlaam da koy teg de côté parce que lenn moo ñu tax a jóg mooy taxawu askan wi nekk ak askan wi ak bépp boor bu ñu ci mën a fekk. Mhm. ñu nag opposition ñu toll di def ay critiques constructives ay constructives du moins yoo xamante ne maanaam xastewuñu saagawuñu waxuñu fi loo xamante ne tey day yàq mais ci ay proposition lañ tollu woon. Mhm. tey yàlla suñu borom def na borom réew mi ki jiite réew mi tey. ba muy prêter serment premier avril deux mille dix neuf dafa woote woon maanaam képp koo xamante ne tey Sénégal la tax a jóg ñëw leen ñu bokk liggéey. politique bi jeex na du bu njëkk lu waral nag ñu wuyu jamono ji. waaw parce que lu lu lu jot yomb du bu njëkk lu lu jot yomb def na ko premier def na ko le trois yàlla suñu borom def ñaari kilifa yi di waxtaan di waxtaan bu mën a daje ci lu ñuy wax dialogue politique te ñëpp demoon ci. Mm-hmm. mbooleem journaliste yi ci Sénégal mbooleem analyste politique yi ci Sénégal ak mbooleem ñi nga xamante ne seen xel may na leen màcc ci ay mbir ñu ngi doon naan opposition bi dafa war a dem uyu biñ demee wuyu ci dialogue bi am na lu jigéen président de la république na leen lii déggoo nañ ci amuñu ci problème li ñu déggoowul kaay leen ñu toog sumb ko liggéeyandoo ko ñun ñu ànd ci ak moom suñu parti président Idrissa Seck jël ndogal ànd ci ak moom di ci liggéey ak moom. Mhm. ñu koy rafetlu te taxaw ne xamante ne président Idrissa Seck Sénégal rek ko tax a jóg kon parce que loolu noonu en 1998 amul luñ ko diggul. pour que mu toog topp euh, PS mais demu ca. Mhm. bi ñu demee 2012 ñu waroon a jàppale ñu waroon a jàppale euh, président Macky Sall mu falu ñun dañ ko jàppale mais jàppale gañ ko jàppale dañ ko ne ñun suñu kaddu lañu la ñuy topp. Mhm. te jàppale bañ ko jàppale ba ñu waree wax wax nañ ba ñu waree jëf jëf nañ yàlla suñu borom def ñuy dox ba àdduna dox ba euh, déggoo amatul ñu génn yàlla suñu borom def na ba déggoo waat nañ gindeeku waat nañ ñu ànd ak moom liggéey ngir Sénégal. Mhm. ndax euh, li ni mel maanaam lëkkaloo gi ñu gis léegi waxtaanee nañ ko ci biir parti mi waaw ci biir parti mi waxtaanee nañ ko te waxtaan bi lu ko jiitu la maanaam at bu jot wala ñaari at yu jot parti bi day dem congrès mhm. te congrès boobu moom mooy réaffirmer ne jox na président Idrissa Seck euh, kàddu mu mën di wax di jëf ci turu parti bi ba pare di rendre compte loolu parti bi texte parti bi moo ko ko may te ñun congrès bi ñun ñoo ko ko may di ko réaffirmer aussi que li may lay wax ni mooy quarante cinq départements du Sénégal yépp mhm. def nañ benn motion unique rafetlu ndogal bi président Idrissa Seck jël taxawu ko nag ne ñun ñoo ko ci gunge jiitu ko ci liggéey ba fañ ko war a liggéeyee muy ci gox yi ak gox goxaan yi mhm. loolu nekk na loo xamante ne ci suñu biir parti amul dara luñ ci natable du benn structure en tout cas muy quarante cinq départements yi muy tous les mouvements affiliés que ça soit femmes jeunes cadre ak étudiants yi ñëpp def nañ seen déclaration ak toutes les coordinations yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci diaspora bi nga xamante ne fépp fu Sénégalais di voter mhm. ak li nga xamante ne mooy sympathisants yi ñëpp def nañu seeni motion de soutien et de félicitation au président Idrissa Seck di ñaanal ñi nga xamante ne dugg nañ ci nguur gi mu Yankhoba Diattara ak Ali Sale Diop yàlla suñu borom te euh, gunge leen ci seen mission boobu. Mhm. bu dee parti bi dafa am muy euh, tëree muy euh, benn schéma bi nga xam ne dañ koy suivre waaye ca allié yi ndax jot nañ leen yëgal ne Idrissa Seck mi ñu bokkaloon coalition Idy 2019 day dem léegi jàppale nguur gi nga xam ne opposition la nekkoon. xam nga yéegal ak tàggoo du benn. Hmm. te aussi ñëpp dégg nañ fi ay leader politique yu doon naan man de sa consulté na ma te leader yu ci coalition bi la bokk xalangu nag dafa dajul suuf. donc ci loolu ci ci ci ci loolu am na ñoo xamante ne tey yëgg nañ ko waxtaane nañ ko ci suñu coalition. am ñu ko yëgul tamit. waaw bu fekkee am na ñu ko yëgul it xëy na ñu ngi koy jéeglu mais jéglu bu du sori parce que président Idriss Seck bi muy jël ndogal ànd ak Macky Sall liggéey ak moom yóbbuwul turu coalition Idy 2019. Hmm. turu parti réew mi la yóbbu turu parti réew mi la demee parce que président de la république nag parti yi fii ñëkk yëpp parce que président Idriss Seck na butuwut làqatuwut doxu ko guddi bëccëg la ko dox dafa fekk ne nag li ngay dox te mu feeñagul ci sutura lay ànd ak njëkk. Hmm. ñi nga xamante ne tey yaa ngi gis tey ci coalition yi nga xamante ne moo gënoon a coalition radicale ñaar ba ñetti tey ne la ñun consulté nañu te ñu nekk woon ci radicalisme boobu kon nga xamante ne xëy na am na ñoo xamante ne tey ñemewu taxaw ne makisal sax consulté nañu mais ñun suñu parti bi Idrissa di dem ci turu parti réew mi la demee demul turu coalition ña àndoon ak moom nag ci élection présidentielle ci njëkk ak ñu ngi leen di jaajëfal di leen gërëm. te xamante ne Sénégal la ñu tax a ñor Sénégal la ñu tax di liggéey te yaakaar nañu ànd bi ñu ànd ak Macky Sall du yàq dara ci xarito bi amoon teraanga bi amoon ak li nga xamante ne moom la ñu war a doxee suba wala war a doxee ëllëg. kon léegi euh, réew mi ndax ay activité euh, da koy amal moom dong walla bépp activité bu réew mi war am moom la alliance bu mu bokk léegi di am. réew mi daal li ko tax di jóg mooy nekk parti de proposition ak parti liggéey. ku nekk ci yéen surtout juna xam ngeen ne réew mi féetewul wax ju bëri. Hmm. da ngeen toog ba mu yàgg sax ngeen ne déggatu leen dégguñ leen fenn dégguñ leen ci nangam parce que booba ñu ngi ci liggéey. Ah, lépp li nga xamante ne tey. Hmm. alliance bi laaj na ko pour mu gën a dëgër ndax ñu gis njeexital ci askan wi ñun dañ ko taxawee. maanaam fa liggéey ba gën a rafete fa liggéey ba gën a jekkee fa liggéey ba gën a baax ñun fa lañ koy féetale. Hmm. en tout bi dana nekk na ci ñaari kilifa yi ñun waa réew mi dañ ko doxal dëggal ko jiitu ko ci lépp liggéey ndax li ci am solo yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp mooy du réew mi moo ci ëpp solo mooy askan wi am solo ànd bi ñu ànd ñu gis na ah réew mi kat jëlul gannaaw ci ànd bi mu ànd ak président de la république ndax liggéeyal askan wi. dégg ngeen analyse yi ak observateurs yi euh, ku ci nekk sa commentaire na mu waree tey maître Wade moom nee na euh, dañuy nax askan wi ci alliance bile ban commentaire nga am ci loolu. waaw président Abdoulaye Wade moom tuuti naa di def ay commentaire ci analyse am parce que lépp fekk lañ ko yoral mooy ñaanal ko yàlla suñu borom yàlla yokk kattanam yàlla yokk dooleem. yàlla yokk ay fanam mu gunge ñu ba ca kanam. Mhm. mais dañoo xam ne rek leen rek lañ ci mën a wax mooy di président Idrissa Seck doon wax mooy euh, day liggéey pour day liggéey pour mu am tey ndam ci àdduna am ndam ci Afrique am ndam ci Sénégal ci tànk yooyu la ñu taxaw na président Abdoulaye Wade yëkkatee woon ay loxoom te ubbee woon ay loxoom. woo sociodémocrate yi maanaam képp kuy socialiste mu woo leen ne leen kaay leen ñu liggéey muy Ousmane Tanor Dieng bu fekk yàlla na yàlla yofal suuf ci kawam ba Ousmane Tanor Dieng la ma ko waxoon 2001 mooy bàyyil ma nekk ci opposition républicaine parce que réew mënta ñàkk opposition kon moom moo leen woon mu woo Djibo Leyti Ka mu ñëwaat ci wetam mu woowaat Ousmane ngoom to gis ngeen na mu tàggalee ko nag Ousmane Ngom Ousmane dellusiwaat ci ci wetam mu woowaat Serigne Diop Serigne Diop delluwaat ci dellusiwaat ci wetam mu woowaa AGPADS AGPADS dellusiwaat ci wetam mu liggéey ak waa LDMPT liggéey ak Moustapha Niass dañoo yaakaar ne Macky Sall tànk boobu aussi la la la jiital jéego boobu la la jiital kon Abdoulaye Wade tey li ñu koy sante mooy ñaari doomam yi muy taawam ak tofo bi. ñëpp tey ànd nañ di liggéey ngir lan ngir Sénégal jëm kanam muy président Macky Sall muy président Idrissa Seck ñu nekk ñaari doom ci Ablaye Wade leen rek la ñuy def mooy du ñu mës a ay waxu président Abdoulaye parce que wor ma lañ ko yoral sag ak sutura rek lañ war a seq ak moom di ko ñaanal aussi yàlla yokk ay fanam comme ni ko waxee léegi nii. wax ci Koungheul googu nga xam ne fa ngay euh, militer ndax tey euh, da nga pare euh, pour samp sa ndënd ci élection yi ñu dëgmal muy locales yi. waaw man daal euh, ci politique lépp lu ma am Koungheul la ma ko gënal te lépp lu ma amit ca Koungheul laa koy laa ji njëkkee kooku moom yàlla suñu borom def na ko ci sama xol mooy sama yéene euh, na ma ko defee woon 2009 defee ko 2014 mooy Koungheul nag nit mënu ko gagné te demoo alliance électorale wala nga dem ci coalition électorale forte mais ci alliance élec euh, alliance boobu len laa mos di jiital mooy intérêt supérieur u Koungheul kan ci ñun ñii moo gën a jekk ci war a mën a jiite Koungheul ci jikko waaye ci waaye nag bi lépp yoon euh, ñu gis ne yéen a ngi ànd ak waa APR te waa APR teg nañ fa tànk foofu Koungheul ndax gis soo ne dinañu am luñ nax saxal ci euh, mbébétu François Calixte déedéet bii yoon la war a gën a yomb ci ñoom ak ci man parce que ka fa nekk maire tey en 2009 ñun ñaar ñoo àndoon ma nekkoon mandataire bi ka fa nekk maire tey ñun ñaar ñoo àndoon 2009 te man maa ko ëpp leen ay conseillers xëy na sax ci commune bi yàlla suñu borom def boobu ñun ñaar ku ne yaa ngi ci kuje gi yàlla suñu borom def ñu déggoo ci waxtaan ba ma nekk mandataire communal ak départemental ba yàlla def mu jël mairie bi ma nekk conseil municipal euh, yore commission des finances ak samay conseillers. ñu demati ci co 2014 yàlla suñu borom def bokkuma ak ñoom coalition ma demal sama coalition ak waa PDS ñoom ñu dem ak seen coalition kenn ci ñun amul majorité absolue mais yàlla suñu borom def na ba ñu war a conseil municipal bi ñu am consensus am déggoo. Assane Diop nekk président du conseil départemental man François Sagna ma nekk premier secrétaire élu conseil départemental du Koungheul loolu yëpp ku nekk ci ñun da nga jël sa bëgg-bëgg bopp teg ko de te loolu nag ñu koy doxal doxal bu rafet parce que ba tey jii may wax ak yow xëy na li ma euh, président Assane di dénk ak di laaj ak di consulter ci conseil départemental ci 38 conseils yi nga xamante ne tey yëpp ci kes li may maa ngi jégalu. ci 30 mhm. conseils yi nga xamante ne yëpp ci Benno Bokk Yaakaar lañ ëpp man la ëpp li muy déglu man la ëpp li muy waxtaanal parce que leen rek a ñu tax a ñor mooy Koungheul ak képp ku ko mënti ki jiite rek. intérêt Koungheul na jiitu intérêt Koungheul na top intérêt Koungheul na mujj te ñun aussi ci loolu la ñuy liggéey suñu mëbët nag am nañ ko suñu bëgg-bëgg am nañ ko mais dañ koy dénk yàlla suñu borom dénk ko population bi seet aussi ki ci suñ kanam parce que bëri nag bu jotee ku ne war ngaa xam ki la mën wala ku ne xawar naa xam ki ñu war a jiital gunge ko. Mhm. Euh, gis nañ tamit ay observateur wala ay constitutionnaliste wax ci euh, njiitalu réew mi ne euh, mënul diriger institution ba pare doon njiitu président maanaam conseil départemental bu cees ban commentaire ngay def ci loolu. waaw pas commentaire mais li ma gis ci président Idrissa Seck mooy kenn koo xamante ne dafa respecter liy yoon loi ak règlement mhm. lépp lu ngeen di wax da leen naan fu ngeen ko teg. ci ban firnde ngeen ko teg président Idrissa lépp luy yoon ak yoonal da ko mës di respecté te yaakaar nañ ne moom dana ko continuer di respecter. d'accord merci beaucoup monsieur François Calix Sagna. waaw jërëjëf di leen nuyu di leen sant yéen ñëpp di nuyu ak euh, feddali sama kóllëre yëpp ñi nga xamante ne ñu ngi may déglu ak aussi di ñaan yàlla yàlla suñu borom def jàmm ci Sénégal yàlla suñu borom def jàmm ci ñi nga xamante ne ànd bii nga xamante ne kenn seetlu ko woon tu mu am yàlla suñu borom na ko barkeel ndax lépp indi ngeenel ci Sénégal.